waaw rap game bi safutoon sukur man ma gene rek mu saf sukur tay laay yengal dekk bi ba rappa yëngu man ma fi dahar rap ay kuko bëgg a suma baram duga ba sa taati mer niga ragaluma sir rab bi legi dafa wara rew réew gomal sa bop ñu amé seen musique bi ñoo gëna a soxor ñu ne boy kenn du dem fii soo siwut duñ la promo duñ la invite seen so di la xeex niga fa nga gene baxa mar ay taat ñu mën la invite niga ya ser seer wooy ko man dama gis lo xamanteni ni comme da ngay dox ni sax si turit bi nga gis tay comme ku jigen ko ni mu ngi jaay bopama ah, te mom dekkul fi ni dekkul ci dekk bi comme beneen dëkk la jóge comme disant que mu ngi jógee Nigéria wala mu ngi jógee beneen dëkk moom mu ngi mu ngi ñëw sa dëkk di jaay boppam firi léegi yow sa doom sa un doom yow mu ngi ko gis nekk jigéen moom mu ngi bëgg dara sax mënu koo am mu ngi bëgg benn 200 wala mu bëgg benn téléphone mënu ko am mu gis ki jigéen ki nga xamante ni dëkku fi moom mu ngi jaay boppam mu ngi amee baxa mu ngi amee iPhone anything ah comme sama doomu jigéen bi comme dafaa dem mu def loolu noonu because tey maa la nekk suma comme Sénégal bi nii tey bu dee lu ma wax nii fen la comme Sénégal bi tey wala yeneen société dama nga tontu nga xool looy gis da gis suma baat attitude ngay nga ca ba xale dara xale bi su trayoon tuuti rek suma ji ma mënoon naa sax lu moo def nii mënoon naa saaf société mënoon naa yor ñu bëri waaye xamul sax lu moo def. la su nekkoon visa rek la nit di xaar ba léegi maa laa wax ni Europe mun ngaa compter black man yu fa nekka waaye half the time bi soo gisee semestre yi big man yu mag yëpp yooni gannaaw bi leen jaar. understand so moo dama ne daal kem bu mu gi fab ifin nga dem hundred times sax ñu laa delloo soo amaatee baxa tegul yàlla moo dee rey fu mu tudd sa dee rek foofu ngaa dee soo gëmee loolu rek doo soona so man daal foofu laa ko téye tey tey tey jii sax su ma gisoon gaal damaa teguwaat billaahi dëkk bu amul compagnie ñëpp si te ñëpp bëgg am foog mu métti waaw te nu mu mën a def ba am am na sama anaana sama beneen morom mënu koo def ba am léegi moom su lu mu yaakaar dem na ba sës nit si xiifeer sàcc kii xiif sàcc waaw xiif si amul nag kenn du sàcc loolu mooy problème réew mi réew mi dañu war a am compagnie yoo xam ne dañ nekk si biir réew mi doomi ndaw réew mi di fi liggéeyee waaye yut si tamit dañ am benn benn xel maanaam su ma tukki du ma tekki waaw ki fi nekk mën nga fi tekki ndaxte yàlla fépp la nekk incombe